cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mamadul moustapha mbàkke mi ngi feeñ jamono ci atum 1888 ci dëkk bu selli bii nag di daaru salaam ci bisub ajjuma fukki fan ak benn ci weeru tamxarit ci atum 1306 ci gàddaay gi dëppoog muy vendredi 17 septembre 1888 ginnaaw bu mu feeñee jamono nag booba mi ngi fekkoon waajuram sëriñ tuuba seexul xaddiim di wër nag pàkk bu selli bii nag di tuuba ginnaaw bu ñu yónnee ay ndaw nag ñu wër nag ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim di ko yëgal ne soxna aminata loo nag am na gan ginnaaw bu seexul xaddiim nag yëgee ne soxna Aminata Lo am na gan ñëwaat na nag ci dëkk boobu nag di daaru salaam bi seex Maodul Moustapha Mbàkke nag matee am aw tur magu seexul xaddiim Mammoor Jaara ak nijaayam sëriñ Mbusoobe Buso ñoo ñëw nag ci dëkk bu sell boobu nag di daaru salaam tudde ku ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam di Moustapha muy doomu sëriñ Tuuba seexul xaddiim ak soxna Aminata Lo moom seex Mamadul Moustapha Mbàkke nag am na ñu bokkal soxna Aminata Lo ak sëriñ Tuuba seexul xaddiim ñu mën cee ràññe seex Mamadou Lamine Baara Mbàkke ibnu sëriñ Tuuba xaadim rasul ibnu soxna Aminata Lo Lo ak kaneen na kum bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor muy sëriñ Ahmadou Mokhtar Dieng ibnu soxna Aminata Lo ibnu sëriñ Mor Ma Dieng Fa Lo ñaar ñooñu nag la Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke bokkal waajur wu jigéen bi mu matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ Touba Cheikhul Khadim moo ko dalal alxuraanul karim ci péncum sëriñ soyen bu ginnaaw bi nag la ko jébbal sëriñ Ndaam Abdourahman Lo moo rakkam ja Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ci loxoy sëriñ Ndaam Abdourahman Lo nag lañ nekk nag ba mokkal alxuraanul karim nekk nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba ba ci atum 1895 mu bàyyi koo fi nag dem nag ci dëkk bi nag di Mbàkke Baari Jolof keroog bi muy dem Mbàkke Baari Jolof nag yóbbaale woon na ñaari doomam yi nag di Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ak Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ñeenti weer itam nag la def nag ci dëkk boobu tubaab bi nag jëlee ko fi yóbbu ko itam nag ci géej gi keroog nag bi Sëriñ Touba Seexul Xadim nag di dem ci géej gi ci loxoy maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke Ndaamal Daaru la tegoon nag Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke Ndaamal Daaru itam nag moo ko jàngal xam-xam ginnaaw bi nag la ko jébbal waajuram nag maam Mor Jaara ngir mu saytu nag njàngum cheikh Mamadul Moustapha Mbacke mu wéy nag des nag ci loxoy maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru ba ni Serigne Touba Cheikhul Khadim nag jógee ci géej gi bi Cheikhul Khadim nag demee ndar géej ci bi mu wooloo maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru cheikh Mamadul Moustapha Mbacke moom nag maam Thierno nag àndoon naag moom itam nag dem ndar ak ñeneen itam nag ca mbooloo ma ndar googu nag la njëkke gisee waate nag waajuram Cheikhul Khadim mu wéy nag ànd ak waajuram Serigne Touba Cheikhul Khadim ba ni Serigne Touba Cheikhul Khadim nag demee gànnaar ci atum 1903 ca 1904 ba nag seexul xadim nag woolu woon na ko fa mook cheikh mamadul faadal mbàkke ak lenn tim nag ci doomi mag ñi ngir ñu fekk si woon ko nag ci dëkk boobu nag di gànnaar gànnaar googu itam nag cheikh mamadou moustapha mbàkke sëriñ tuubaa seexul xadim boole woon na ko fa ak naari gànnaar yi ngir ñu wéel nag am njàngam ci wàllu xam-xamu arab mu wéy nag des nag gànnaar ci loxoy waajuram sëriñ tuubaa seexul xadim ba ni sëriñ tuubaa seexul xadim jógee gànnaar ci atu 1907 ginnaaw gànnaar nag ca yéen jolof ca yéen jolof googu nekkoon na fa ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ba tax na itam nag Seexul Xaddiim ci yéen jolof googu sax la ko sampalee kër boole ko ku ñuy wax soxna Aminata Lo bintu sëriñ Ndaam Abdourahman Lo mook soxna Aminata Lo nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee taawu Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ba di soxna Mariamu Mbàkke ak sëriñ Mbàkke Madina ak soxna Daba Mbàkke ci yéen jolof googu itam nag la leen sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim woolu woon di leen xamal ne yoon wi itam nag jaayante rek moo fi maye dara waaye du doom du jarbaat du rakk booba itam nag Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag la Seexul Xaddiim doon cheikh mamadul faadal mbàkke sëriñ moo roqaya busoo ak cheikh masamba mbàkke cheikh mamadul moustapha mbàkke nag jaayante woon nag cheikhul xadim nekk itam nag am murit ci ginnaaw ku baax ki sëriñ tubaa cheikhul xadim cheikhul xadim nag wéy dang des ca yéen ba ci atum 1912 mu dem njaaréem ca yéen jolof googu itam nag cheikh mamadul moustapha mbàkke nekkoon na fa itam nag ku bëgg sëriñ tubaa cheikhul xadim ba tax na nag bopp bi sax daana ko bàyyi mu sëq bañ koy wooye boroom njañ ni ba tax na sax am na ay turandoom yu bare bare bare bare nag njañ leen di wooyee njaaréem googu nag la ko sëriñ tubaa cheikhul xadim joxe ko xamal ne dafa bëggoon nag mu dem nag ci wetu Touba sanc fa nag ab dëkk Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag demoon na nag sanc ab dëkk bu mu tudde nag Osnul Mahapa ñu gën koo xam nag ci tundoodi ci atum 1914 tundoodi googu itam nag la nekk di yar di jàng ak di jàngale ci mbooleem nag ñi ko yaakaar ngir ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasul ba tax na itam nag ñu baree baree baree baree bari ci doomu mag ñi jaar nañ nag ci dëkk boobu nag di tundoodi ñu baree baree bari itam nag ci doomi rakkam yi wala ay rakkam itam nag jaar nañ ci dëkk boobu nag di tundoodi mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di Murit Ndóodi ci ndigalal waajuram Serigne Touba Seexul Xadim Seexul Xadim itam wéy des nag ci dëkk bi nag di njaareem ci résidence surveillée mu wéy nag topp nag ci ginnaaw waajuram Serigne Touba Seexul Xadim bani Seexul Xadim génnee àdduna ci bisu fukki fan ak juróom-ñeent ci mois de juillet ci atum 1927 Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ñëw nag njaareem jox ndigal nag rakkam Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ak lenn itim nag ci mag ñu gunge nag ko baax ki Serigne Touba Seexul Xadim ci dëkk boobu nag di njaareem ngir indi ko nag ci dëkk bu sell bi nag Bachir Mbacke bu ñëwee itam nag na wax ay waajuróom ak lenn itam nag ci mag ñi àndoon ak ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim ñu fekk si nag bis bu mujj nag ci ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim sëriñ Mbacke Bousso itam nag na ko taxawu yoonu murit nag sëngéem tubaab bi itam nag teg bët nag yoonu murit ba mu am juróom benn fan tubaab bi nag doog a génn benn décret di wax na nag léegi daal ci yoonu murit Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke lañ ci waxal ci bisum ñaar fukki fan ak juróom nag ci mois de juillet ci atum 1927 ñuy wooye Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke grand marabout de Touba Cheikh Modou Moustapha Mbacke nag yor nag ndonal waajuram Serigne Touba Xaadim Rasool fas yéene ko sàmm na war naa wane nag lu leer a leer leer a leer ci kanamu nag ay baayam ba ñooñ kat lañ xalaatoon ci Xaadim Rasool gis ko ci jëmm ji di Cheikh Modou Moustapha Mbacke taalibe yi nga xam ne nii bëgguñu kudut Xaadim Rasool moom itam Cheikh Modou Moustapha Mbacke war naa def ngóora ba taalibe yooyu lañ doon sàkku ci Xaadim Rasool mën koo gis ci jëmm jooju rakki boppam yi nga xam ne nii xam nañ bu baax Xaadim Rasool ñoom itam war a lañ doon séentu waajuroo ñu mën koo gis ci jëmm ji rakkam yi nga xam ne wa xaadim rasuul ñoom itam war a ba ëllëgee duñ wax mukk ne bu fi sama waajur wa nekkoon lii duma dal taalibe yi war a ñëw ci yoon wi ginnaaw bu fi xaadim rasuul jógee itam dañëw jaayante itam war naa wane lu leer loo xam ne nii dana tax kenn ku ne xemmeem yoon wi àdduna moo këpp ci kaw Cheikh Modou Moustapha Mbacké Cheikh Modou Moustapha itam du fàtte mukk itam mébét bi xaadim rasuul bëggoon moo xam bi mu nekkee Gabon bi bi mu nekkee ca yéen jolof gànnaar ba ci njaareem muy jumaay tuubaa ji seex mudu mustapha sax xam na ne sëriñ tuubaa bëggoon na ko ba taxawaloon ko boppam ci tuubaa wala ba tàmbali woon koo taxawal boppam ci tuubaa waaye xam na li ci xew ndax keroog bi ñuy yóbbu signature bi moom seexul xaddim yónni woon na ko te mujjul sotti te seexul xaddim digoon na leen ci sëriñ ca bu yaatu mook cheikh mamadul faadal mbàkke ci bis buñ ko amalee muy jumaa ji ndono li fi xaadim rasul bàyyee woon cheikh mudu mustapha mbàkke la woon ñaar ya nag nag cheikh Modou Moustapha Mbacke def na ko muy moom xaadim rasul bi fi bàyyi ko na ko cheikh Modou Moustapha Mbacke yóbbu Touba te bu xaddamu loolu moom mu Modou Moustapha Mbacke amal na ko bi ci des kay moom mooy jumaa ji boole koog nag tubaab bi wii di teg bët lii di yoonu murit saa su ne mu di ko nemmeeku ba xam dara xew na ci am ndéet cheikh Modou Moustapha na xam ne liggéey rek moom moo sës ndax kat lool rek la leen fi xaadim rasul bàyyee loon te ci loolu la ko xaadim rasul tàggatoon te mooy jumaay Touba ji te Cheikh Modou Moustapha xam ne ne jumaa ji njëkkoon nañ koo programme ci Touba ci nekkinu ku baax ki Serigne Seexul Xaddim te erreur de signature amoon na ci ba tubaab bi mujjoon am fu sukkandiku ba ne daal contrat bi baaxul Cheikh Modou Moustapha war naa dawaat loolu ba moom jumaa ji muy taxawal loolu du ca am mu xam ne nag njëkk a aar suufus Touba moom mooy lu wér li bu ko defee nag nguur duutu ci sañ dara ci mois de septembre ci a 1928 Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké nag jot na négocier nañ ko mu toll nag ci cinq kilomètres carrés bu ne nag un million franc CFA nag lañ ko ko jaayee. ginnaaw ponk aar suufu Touba bi mu noppee baneen ponk bi nag mooy dem ñaani autorisation ngir mën a tabax jumaay Touba ji ginnaaw bu mu jotee autorisation bi ba noppi nag tubaab bi mi ngi xamal Cheikh Modou Moustapha Mbacké di ko wax ne tuubaa ci Sénégal la bokk waaye amul nag wenn yoon wu ko lëkkaleeg benn dëkk ci biir réew mi saxaar gi rek moom moo fi sës ci yoon wu gën a gaaw ngir nga mën a amal li nga bëgg teyit lu dul loolu sax matériel bi nga xam tabax lii di jumaay tuubaa ji saxaar dong ko mën a indi ci dëkk bu sell bii di tuubaa booba raay bi njaaréem la yam jëm ci dëkk bi nga xam ne nii moom mooy Kaolack Cheikh Modou Moustapha Mbacke moom moo jële raay bi njaaréem indi ko ci dëkk bu sell bii di tuubaa ci liggéeyu raay boobu tubaab baa ngi xamal kii di Cheikh Modou Moustapha Mbacke di ko wax ne équipe bu mën a gas lii di raay bi moom amu ko léegi nag liggéeykat yi war a gas raay bi Cheikh Modou Moustapha Mbacke moo koy wut suñ demee nag ba teg raay bi des moom mu doogu wut ñu ko teg Cheikh Modou Moustapha Mbacke laajoon na mag ñi ñu joxe seeni taalibe ñu mën a amal lii bii di gasum raay bi mag ñi tim nag joxe woon nañ ay taalibe bëgg-bëggub cheikh mamadul moustapha mbàkke boobu nag mën a am ba tey tubaab bi di xamal kii di cheikh mamadou moustapha mbàkke bu ne deux cent mille laa la koy jaayee cheikh mamadou moustapha mbàkke dix millions la joxe ngir mën a raay bi ba tey tubaab bi nag di xamal cheikh mamadul moustapha mbàkke liggéeyub raay yombul diggante weñ la ak ciment ak xeer te diggante weñ ak ciment ak xeer dafa diis doomu aadama yi ciy liggéey nag dañoo war a lekk nag lu nii na cheikh mamadou moustapha nangu na bépp ndigal bu ko tubaab bi jox bëgg amal ndigalul waajuróom wi xam na ne bu taxawee ndam rek lay doon ndax loolu la waajuróom yu bëggoon ca Gabon ca njaareem fu ne daana fa misaal jumaay Tuubaa ji lu sart yi metti metti metti Cheikh Modou Moustapha Mbacke dana ko muñ ba mu noppi wala ba mu taxaw lu dul loolu rek du mën a am te xamul kañ lay fekki xaadim rasul mu di ko laaj jumaa ja mu naan ko ma ko fa bëgg-bëggub sëriñ Tuubaa boobu nag taxoon na Cheikh Modou Moustapha Mbacke warlante woon nag képp koo xam ne nii da ciy liggéey bés ñu jox la nga lekk ceeb ak suur tubaab bi waxoon na cheikh Modou Moustapha ne ko nit ku ne war na lekk lu tolloog trois cent grammes ceeb muy gan waa liibar bu teg tuuti yàpp wi nag tubaab bi mi ngi ko xayma woon itam ci deux cent cinquante grammes muy gan waa liibaru yàpp mu cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag bis bu set daana rey nag ñaari nag ceeb itim nag daana ko joxe ñeenti bërigo ak juróom fukki kilo nag lañ daa sóor itim nag bis bu set ci diirub at ak ñetti weer ak ñeenti fan bi gasum raay bi eggee xayma nañ ne cheikh Modou Moustapha Mbàkke dépensé na quatre cent cinquante tonnes ceeb yu teg juróom fukki kiloy nag yi nga xam ne ñuy rey nañ leen ci diirub gasub raay bi ñi ngi ko xayma nag yu teg ñu def nag ci gasum raay bi ñi ngi ko xayma woon ci junniy bërigo ak juróom benn fukki bërigo ak ñett yu teg juróom fukki litre kon coono bii bépp mu Modou Moustapha Mbacke daj na ko laataa jumaay Tuubaa ji di taxaw lépp rek mu xam ne ndigal lii daal la leen fi xaadim rasul bàyyee loon nag yi ñu leen limal na ku ñuy wax sëriñ Moodu Cuun moom la Cheikh Modou Moustapha Mbacke waxoon saa xëyee mu defar leen Cheikh Modou Moustapha xam ne nag lii lépp nag tubaab bi bëgg xaalis mooy koy defar mu laaj nag murit bu ne jamono jooju ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett muy li ñu tudde cent quarante francs yi boole koog nag Cheikh Mouhamadou Moustapha sanc ay dëkk yoo xam ne nii lépp loo xam ne ni dafay ñoree ci wàllu mbay ñu mën koo def ci jumaa ji seex si itam ñu leen di bayloo ngir lu ci tukkee mën a ñëw ci jumaay xaadim rasool ji yeneen taalibe yi nga xam ne mënuñoo gor itam ay dëkk taxawal liñ tuddee ay tool àllarba tool àllarba yooyu itam jubluwuñ ci woon dara lu dul murit fa mu nekk mën a liggéey nag lu jëm si ci jumaay ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moo tax ci nekkinu Cheikh Modou Moustapha Mbacke tool àllarba yi bari woon na lool lépp rek ngir bëgg-bëggub xaadim rasuul bi muy jumaa ji mën a am mu fab nag rakkam ji nga xam ni ni sëriñ Touba Seexul Xaadim moo leen boole woon muy Cheikh Mamadul Bachir Mbacke waxoon leen dama bëgg ngeen booloo nasu te itam lépp luy jëmale yoon wi kanam ngeen bokk ko ànd ko def moom la Cheikh Modou Moustapha Mbacke jëloon def ko jëwriñu gasum raay bi gasum raay bi nag mi ngi tàmbali bisub lundi 11 novembre 1929 la Cheikh Mamadul Bachir Mbacke xëy nekk ci bopp murid yi jiite lii di gas gasum raay bi gasum raay bi mi ngi egg bisu samedi 14 février 1931 la cheikh mamadul bachir nag xamal cheikh mamadou moustapha mbàkke ne ko ndigal li ñu joxoon matal nañ ko tubaab bi xam ne itam nag kon yëf yëpp egg na murid yi nag gas raay bi ci ndigalul cheikh mamadou moustapha mbàkke ci at ak ñett ñetti weer ak ñeenti fan ginnaaw bu raay bi eggee ci le 14 février 1931 tubaab bi nekkoon na di saytuwaat raay bi nag ba xam liggéey bi lépp macha allah waaw wala déet saxaar gi njëkk a ñëw Touba nag ngir xool ba xam raay bi saxaar mën na cee dawam déet mi ngi egsi Touba bisub samedi 14 mars 1931 fii gaar bu mag nekk tey ji foofu la saxaar gi gaare woon ndax foofu la gaar bi yamoon seemunu safaa xam ne itam kon ponk boobu itam mat na li des mooy xool nag fuñ mën a nekk ci li nga xam ne ni moom mooy jumaay Tuubaa ji ñu wër ba gis dëkk bu ñuy wax ndokk rakkam ja Cheikh Mamadul Faadal mbakke la féetale woon nag ci dëkk boobu nag di ndokku mu nekk nag jëwriñu mag ñi mag ñi itam nag di yanoo nag ci dëkk boobu nag di ndokku xeer yi nag di ko indi Tuubaa ngir bëgg-bëggu Xaadim Rasuul bi nag mën a am ginnaaw carrière bi lii di ndox seex Cheikh Mandumbe Mbàkke bokkoon ci jàmbaaru Sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim bi defaroon na lii di ay setterne su nawet jotee nag ñu mën cee root ndox boole ko nag dëkk yi wër Tuubaa nag te am ndox ak lenn itam nag ci teen yi nekk nag ci dëkk bu sell bii Touba. ci loolu la cheikh Modou Moustapha Mbacke sukkandiku ba mën a defar lii di jumaay Touba ji cheikh Mamadou Moustapha Mbacke xam ne na xëy tàmbali jumaay Touba ji rek moom moo sës bisub ajjuma fukki fa ak benn ci weer wi di weeru korité ci atum 1350 ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 19 février 1932 la cheikh Modou Moustapha Mbacke woolu kii di sëriñ Mbacke Bousso mu ñëw génn xiblab jumaay Touba ji bisub ajjuma boobu bi sëriñ Mbacke Bousso di ñëw ngir génn si lii di xiblab jumaay Touba àndoon ak doomam ju ñuy wax sëriñ Mouhamadou Baaxeer Bousso ak keneen ku ñuy wax sëriñ Moodu Xari Bousso sëriñ Moodu Xari Bousso mi doomu sëriñ Masamba Bousso la sëriñ Masamba Bousso ak sëriñ Mbàkke Bousso ñoo bokk waajur wu góor ak waajur wu jigéen ginnaaw bu ñu génnee lii di xiblab jumaay Tuubaa ji ba noppi ñeenti fan lañ ci teg mu tombeeg bisu talaata fukki fan ak juróom ci weer wi di weeru korité ci atum 1350 ci gàddaay gi mu dëppoog muy mardi 23 février 1932 bisub talaata bii nag lañ woolu ku ñuy saw wala birahim saw ab lawbe la woon moo dagg bépp gi nekkoon ci bunt jumaa ji ñu mën a amal jumaay tuubaa ji ginnaaw bu birahim saw daane leen lii di bépp gi fukki fan nag lañ ci teg fukki fan ya moo dëppoo woon nag bisu ajjuma ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi di weeru korité ci atum 1350 ci gàddaay gi dëppoo vendredi 4 mars 1932 bisub ajjuma ji la cheikh Modou Moustapha Mbacke xëy teg nag xeeru jumaay tuubaa ji ci teewaayu société bi nga xam ne nii moom moo war société italienne bu tudd Dragaz ak lu takku nag ci kilifay yoonu murid wi ñu ràññee woon ci ma Massamba Mbàkke mi nekkoon waajuram ak rakkam ja di Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke ak ñeneen ak ñeneen ñu takku ci yoon wi di yoonu murid ku ñuy wax bàmba Sàmb moo jël ci suuf saak ciment ba def ci turéel ba jox seex Cheikh Modou Moustapha Mbàkke mu texeeru jumaay Tuubaa ji liggéey bi nag daa di tàmbali ci bisub 4 mars boobu liggéey bi seex Cheikh Modou Moustapha Mbàkke wéyal na ko ba ci atum 1939 guerre mondiale bi tàmbali Cheikh biir guerre mondiale bi ba ci bëccëgoog le 9 juin 1940 la Cheikh Modou Moustapha Mbacke arrêté lépp luy liggéeyu jumaa ji liggéey bi bi ko Cheikh Modou Moustapha Mbacke di arrêté jumaa ji mi ngi toll ci ay fenêtre muy bâtiment bu ñu liggéey ba fenêtre yi génn ñeenti sooroor yi itam booba taxaw nañ ba nit ñi mën a xam ni lii ay sooroor la foofu la Cheikh Modou Moustapha Mbacke bàyyi liggéeyub jumaa ji laata guerre mondiale biy jeex Cheikh Modou Moustapha Mbacke génn àdduna boole kook at yu néew yi ndax 58 ans dong nag la dund moom Amdi Moustapha ginnaaw mission jumaa jooju beneen mission bu mag nag mi ngi xaaraat jàmbaar ji di cheikh mamadul Moustapha Mbàkke seexul xaddim bi mu fiy bàyyi ko bari na ci njabootam ay tut tànk lañ te ñooñu kat cheikh mamadou Moustapha Mbàkke seen avenir moom moo ko war a sàmm ba bu ëllëgee kenn du ne bu fi sama waajur wa nekkoon lii du ma dal loolee itam cheikh mamadou Moustapha Mbàkke xamoon na ko ba sóoraale woon na ko ba tax na kon ay rakam ñëpp itam da leen war a jàngal bañ mokkal ku ci war a taxawal kër mu taxawal lii di kër itam te ku ci war amub dëkk itam war na laa jox ndigal nga sanc ko mbégtem Cheikh Modou Moustapha xam na ko te warlonte woon na ko ki rakkam te defal na leen ko kii di Serigne Touba Cheikh Abdou Lahat Mbacke Serigne Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke Cheikh Abdou Samad Mbacke Serigne Sohen bu Mbacke Cheikh Murtada Mbacke ak ñeneen ak ñeneen ñi ñépp bi fi Serigne Touba Cheikhul Khadim di bàyyi ko booba tuut tànk lañ te seen ëllëg Cheikh Modou Moustapha Mbacke mooy ki ko war a sàmm te defe na ko noonu ba mu mat sëkk ñu jigéen ñi itam ñu ci bare bare bare bi fi Cheikhul Khadim moom ab yar boole ko soo matee dem kër mu boole laa ku la mën a yor seeni waajur ñoom njabootu xaadim rasool gi itam cheikh modou moustapha mbàkke war naa fexe ba kenn ku ne yëg ne xaadim rasool ma fi nekkoon ba nëgë ne mi ngi fi kon coono bu metti la cheikh modou moustapha mbàkke jànkontoloon ci atu 1927 ba 1945 ganeen njabootuk sëriñ tuuba seexul xaddim gi nga xam ni nekkuñu ay tuut tànk te boole koog nag li leen cheikh modou moustapha mbàkke mage bariwul lool lool ñoom itam war na leen a jox cër bañ xam ne ñoo bokk xaadim rasool lu muy def def yëgal leen ñu xam ne ba nëga ne xaadim rasool mi ngi fi muy cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh mamadul basir sëñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ak cheikh ibrahima mbàkke ñu jigéen ñi mooy soxna fatja mbàkke soxna maymunatu mbàkke kubra soxna xadijatu mbàkke soxna jóob mbàkke ak kii di soxna assugaawaan mbàkke ak ñeneen ak ñeneen ci njabootu xaadim rasool gi fi nekkoon nag jamono jooju te ay jigéen lañ waaye ay mag lañ ñoom itam war nañoo yëg ne cheikh modou moustapha mbàkke li muy def seen yëfi bàyyi la toppoon xaadim rasul te feesoon dell ñoom itim booba ñi ngi fi te cheikh modou moustapha mbàkke war naa fexe ba ñépp xam ne xaadim rasul mañ daa gis njaareem ak ca yéen jolof ba nëg ni mi ngi fii ci tuubaa mën naa am at mi ak col mi rek moo changé waaye doxalin bi dara soppeekuwu ci ay waajuram itim ñi ngi fi ku mel na maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru maam cheikh anta mbàkke sëriñ afiya mbàkke sëriñ balla coro ak ñeneen a ñeneen ñoo xam ne ni rakki ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim lañ tey itim ay kilifa lañ ci yoon wi te waajur lañ ci cheikh modou moustapha mbàkke te ñoo ko mag fopp tubaab bi itam siiñ fang yoonu murit ba tey buur yi ñi ngi fi jamono jooju ndax jeexagul te àll bi tojagul lu baree baree bari ci wàllu dund yombul naka la cheikh Modou Moustapha Mbacke wuutoo xaadim rasul ba tey ci jëfi cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ñu mën cee ràññee bis bii di màggalug daarul xuddoos moo ko taxawal ci atum 1936 ñu ngi ko njëkk a amal bisub gaaw fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi di weeru muharram ci atum ci gàddaay gi dëppoo woon ak bisub samedi 11 avril 36 bis bii la cheikh Modou Moustapha Mbacke njëkk a màggal màggalug daarul xuddoosa mooy màggal itam gu njëkk a def ci dëkk bu sell bii di Touba indi na ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim ci dëkk bu sell bii di Touba taxat dëmmul comme na ko xaadim rasul bëggee woon gas na raay bi noppi te amul bor mi ba tub ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim muy jumaay Touba ji itam tàmbali na ko aar na itam dëkk bu sell bii di Touba ba kenn du fi sañ dara muy titre foncier mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ seexul xaddim itam fexe na ba kenn saalitu ay rakki boppam kenn mënu ko koo jam nit ñi bëggoon a jébbalu ci yoon wi itam ci ak nekkin itam fexe na bañ jébbalu ndax xam nañ ne xaadim rasul mañ doon dégg kat ba nëgë ni mi ngi fi bépp mag mu fi bàyyi ko itam mu ne anab taawam ñu ne mi ngi fi mu ne na njaboot gépp itam topp taaw ba ndax kat loolu Cheikh Modou Moustapha Mbacke mooy ki ko fi indi ay waajur yi boppam muy ñi bokk ak waajuram waajur ñoom itam fexe na ba kenn ku ne xam ne waajuram nga ndax joxoon na la ci ru waajur lii di kilifay yi fi nekkoon itam Cheikh Modou Moustapha Mbacke fexe na ba sa diggante ak moom def na ko suñu suñu mbokk tarixa yiñ fi nekkaloon itam kenn ku ne séqoon naag yow jàmm ba boo xewlee mu dem seeti la wala mu yónnee ay ndaw yu la seet boole koog nag balaa def dara laaj murit yépp xalaat ndax kat Cheikh Modou Moustapha Mbacke li mu amoon ci ay conseillers jaaduwul daana wax ne su juumee ñépp xam ne mbooloo moo juum li ma yor moomu ma ko xaadim rasuul moo ko moom te képp nag kuy taalibe murit ci nga bokk gàcce ngaalaamaa am di ndax lépp lu la waroon def nga ko ci diirub li nga toog xalifa général des murit wala ci diirub li nga wuutu toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim te yaakaaroon ko bindkat yépp bind itam jëmale ko cheikh mamadul moustapha mbàkke moo xam sëriñ mbay jaxate sëriñ moor kayre ba ci cheikh ka kenn ku ne way nga ay way way way jagleel ko cheikh mamadul moustapha mbàkke ak yeneen bindkat yi ñu xamul moom cheikh mamadul moustapha mbàkke moom na ku bëggoon ay rakkam la soo demee ci mbindum soxna may borom laylatul xadar mi ngi wax ci wolofal gi mu bind di wax ne gaawu gi cheikh mamadul moustapha mbàkke mujjee waxtaan ak ñoom laata gaaw bay delsiwaat ci ajjuma waajal a génn nag lii di àdduna ba tey soxna may moomu nee na yeex naa xam ne cheikh moodu moustapha mbàkke seen mag la cofeel gu mu amoon ci ñoom sëriñ tuubaa cheikh abdoulahat mbàkke seede na itam lu baree bari ci magam jooju di cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke ñoom ñaar moom ay xarit lañ woon ci atu mu bi cheikh moodu moustapha mbàkke sancee dëkkam boobu di taayif cheikh mamadul faadal mbàkke la waxoon mu joxe turam cheikh mamadul faadal mbàkke moo tudde taayif taayif boole koog dafa xasida jagleel ko taayif ak cheikh mamadul fonkoon ay rakam nangoo liggéey googu mu nangoo liggéey taxoon ay turandoom macha allah cheikh Modou Moustapha Mbacke am na ko ci ay rakkam ay taalibey waajuróom ak ay waajuróom ci boppam képp kum bokkaloon xaadim rasul nga nekk doomu baayam tudde nga ko doom seex yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaadim itam ñu ci baree bari tudde nañ kii di doom cheikh Mamadou Moustapha Mbacke tax na lii di ay turandoo moom macha allah bari leen na ko lool ci yoonu xaadim rasul wi ay turandoom nag mën nañ cee ràññee Moustapha Amdi turandoom yu ñuy wooye Mohammed am na ay turandoom yu ñuy wooye Kamal ak tur yu ñuy wax Njeñ ay turam itam ràññee nañ ci Tafa Abdul Fata ak Madina ak yeneen ak yeneen i tur yu ñuy wooye jëmm jooju di Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké Cheikh Modou Moustapha itam ku sàmmoon kóllëre la ndax ginnaaw ba mu jàngee ci réew moomu di gànnaar am na ay naar gànnaar yoom amanteel la woon lii di wóllëre te mook Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké mi rakkam ak Sëriñ Mor Roqaya Buso mi doomu bàjjanam naari gànnaar yooyu daana ñëw ci dëkk bu sell bi di Touba di leen seet si ñoom ñett ñooñu am na ci naar buñ doon wax Mohammed Abdullah al Awaliyu seet si woon na Cheikh Modou Moustapha Cheikh Mamadul Fadal ak sëriñ Mor Roqaya Bousso bim ñëwee bindante woon nañ ay way naar boobu di Mohammed Abdullah al Awaliyu bindoon na ay way ñoom ñett ñooñu di leen sàkku ci daraay baxa ju ànd ak tubayam jaarale ko nag ci wayi arab ak lii di way wolof ngir ñu xam ne ñoom ay wóllëre lañ ñu teewlu way yi naar bi bindoon doon sàkku ci Cheikh Modou Moustapha Cheikh Mamadul Fadal ak kii di sëriñ Mor Roqaya Bousso daraay baxa ju ànd ak tubayam ngir di leen lim ko laaj hal fiikum maajidun nadbun yamunnu alay bi mbubb min baxas aw bi turki aw bi tubay man yafalan minkum haada ala ajalin danaala an ajilin xabla xuróobi di fay Muhammad Abdullah al awaliyu loolu la bindoon sëriñ Mor Roqaya Buso nag tontu woon na ko moom itam jaarale ko ci ay way ñu teewlu tontu sëriñ Mor Roqaya Buso law ndeltu ab baxa yaa saaxi ma jox la ko tey xabla al xuróobi walakin huwa barla alay law xulta lexta fa xintan xayra baxatanal bihi wa illa fala tazfar asibi tubay Mouhamed Abdullah al awaliyu moomu kii di Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke moom itam tontu na ko ginnaaw way yooyu mu doon sàkku daraay baxaje ñu teewlu tontu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke fa haaka baytayni minni doona axti tubay li annani aajisun saahibi jox la ko tey wallahi tallahi lawla al aqlu yamnauni an nawni shi'rin tara minni ahsana way Cheikh Mamadou Moustapha itam tontu woon na naar boobu di Mouhamed Abdullah al awaliyu ngir di ko wax ne daraay baxa jooju ak tubay jooju mu soxla dégg na Moustapha Mbacke yaa shaa'iran muflixan yatwil balagata tey ndeke mbubum baxa mimma lam tanal hu ba tey iddaaka yaa xillu inni kuntu muxtajiban wala na fabshir bi anni man danaa la ko may naar boobu di Mouhamed Abdullah al awaliyu moom itam tontuwaat na leen ginnaaw bu ko kenn ku ne tontoo ñu teewlu ko baadir ilal wa'd yaa saaxi bi jox ma ko tey yow mustafa mi ne woon maa lam tanoo ba tey wa maa aleyki bi daynin laa wala ajasin laakin baxaak turki daaw yomb na waaye ba tey lii rek day wane ne Cheikh Modou Moustapha Mbacke ku fonkoon kóllëre la Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sanc na nag dëkk yu takkoo takkoo takku ci ak dundam ñu ràññee ci dëkk bi mu njëkk a ci ndigalul ko baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim di tundoodi ci atum 1913 sanc na ñaareelu dëkkam bu ñuy wax xàbbaan ci atum 1919 ci atum 1920 sanc na dëkk bu ñuy wax kayal atum 1922 sanc na dëkk bu ñuy wax ñaaxeen sanc na dëkk bu ñuy wax nubooji ci atum 1928 ci atum 1932 sanc na dëkk bu ñuy wax Madina sanc na dëkk bu ñuy wax coon ci atum 1932 sanc na dëkk bu ñuy wax Daaru Nahim ci atum 1938 sanc na dëkk bu ñuy wax Taïf ci atum 1939 sanc na dëkk bu ñuy wax Daaru Bayla ci atum 1943 sanc na itam dëkk bu ñuy wax Daaru Lislaam Danki fa la dawloon sax doomam ji di Sëriñ Fàllu Mbàkke sanc na dëkk bu ñuy wax Nayde Mbàkke doomam ji di sëriñ cheikh mbàkke gaynde Fatma la fa dëloon ak dëkk bu ñuy wax tiise fa la doomam ji di cheikh ibrahima mbàkke nekkoon ak yeneen ak yeneen i dëkk ak i daara yu jëmm ji di cheikh mamadul moustapha mbàkke taxawal ci atum 1939 bi mu sancee dëkk boobu di taayif moom cheikh mamadul moustapha mbàkke joxaatoon na yeneen magitam ñu sanc ay dëkk ngir ñu wër taayif ngir kat la fay tukkee mën a dem ci jumaay xaadim rasool ji ci atum 1940 la cheikh mamadul moustapha mbàkke arrêté liggéeyub jumaa ji ndax deuxième guerre mondiale bi ay weer cheikh Modou Moustapha Mbacke génn àdduna ci Touba ci daaru gi sëriñ Touba seexul xaddim sancoon di daarul xuddoos ci kër gi nga xam ne nii fa la seexul xaddim daa ëpp lum daa nekk ci Touba muy bayti ci feebar bu ko tëraloon bisub ajjuma ñetti fan ci weer wi di weeru baraxlu ci atum 1364 ci gàddaay gi ajjuma ñetti fan ci weer wi di weeru baraxlu ci atum 1364 ci gàddaay gi dëppoog muy bisub vendredi 14 juillet 1945 vendredi 14 1945 ci Touba ay atam tolloon ci juróom fukki at ak juróom ñett cheikh mamadul moustapha mbàkke dem ñu woolu cheikh mamadul faadal mbàkke mi nga xam ne ni moom moo nekkoon ñaareelu xalifa xaadim rasool moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci wetu waa waajuram wa xaadim rasool ci sooroor bi féetee kër cheikh mamadul faadal mbàkke ay xalifaam nag nii la tëdde moom cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ cheikh mbàkke gaynde fànn moo ko njëkk a wuutu ci le 14 juillet 1945 ba le 11 mars 1978 2008 ñaareelu xalifa cheikh mamadul moustapha mbàkke mooy sëriñ mbàkke madina moo toog xalifa ci le 11 mars 1978 ba le 13 juillet 1985 ñetteelu xalifa cheikh mamadul moustapha mbàkke mooy sëriñ mouhamadan xariloo mbàkke moo toog xalifa ci le 13 bala 1985 ba le 4 avril 1986 muy juróom-ñeenti weer yu teg juróomi fan ñeenteelu xalifa cheikh mamadul moustapha mbàkke mooy sëriñ aliyun mbàkke moo toog xalifa ci le 4 avril 1986 ba le 8 avril 1998 juróomeelu xalifa cheikh mamadul moustapha mbàkke mooy sëriñ xaadim mbàkke ibnu cheikh mamadul moustapha mbàkke moo toog xalifa ci le 8 avril 1998 ba le 13 juin 2004 le 13 juin 2004 ba nëga ni nag juróom benneelu xalifa cheikh mamadul moustapha mbàkke moo fi nekk di am caatam di sëriñ ahmadou moxtaar mbàkke moom sax la duppee magam jam loon bokkloon waajuru jigéen di soxna aminatuloo di sëriñ Ahmadou Mokhtar Dieng ñu koy ñaanal moom sëriñ Ahmadou Mokhtar Mbàkke mi toog toogaayu Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke suñ borom yàggal ko ci toogaayu Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke ndax sagu mbooleem waa Daaru Xuddoos gépp la Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke nag am na bis ñu koy fàttaliku ci lu ñu tudde lii du ak màggal muy ñetti fan ci weer wi di weeru baraxlu di bis bi mu génnoon àdduna ci weer wi di weeru olof saa su ne bu dikkee njaboot gi danañ koy màggal rawatina lu luñ tudde njaboot gu jigéen gi ci mbooleem dëkk boo xam ne ni mu Mamadou Moustapha Mbàkke sanc na ko wala mu sanc loo woon ko mag ñi am na beneen bis bu ñuy fàttaliku cheikh mamadou moustapha mbàkke jaarale ko ci màggal gim doon amalal waajuram wa di xaadim rasool muy ñaar fukki fan ci weer wi di weeru muharram di bis bi xaadim rasool ñi bisee woon ci dëkk bu sell bii di tuubaa bis boobu itam danañ ko ci fàttaliku waale moom cheikh mamadou moustapha mbàkke ak li ñu tudde ay journée culturelle cheikh mamadou moustapha mbàkke ñuy ñaan ci darajey jëmm jooju di cheikh mamadou moustapha mbàkke yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te ñu ci barkeem te guddal fanu njabootam gim fi bàyyi moo xam sët la doom la ak mbooleem taalibe yi lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ boroom saafara ci dara jaam amiin jaam amiin